إلى الكتاب والحديث صرفا قلبي وقلبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث صرفا قلبي وقلبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث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 fukki fan ak ben ci wéru août waye tam muy deppok ben fan wala ñaari fan ci wéru muharram ci benuk at mu yes mi ñi sentu di 1443 amadou Mahamadou Mountakha bakke jox talibé yépp ndigal ngir ñu dundal bis bobu ci njangum xasida mu yaatu mo xamni ne mbokk taalibe yëpp ñoo bok bokk te wàccaay ak li jëm ci li tax mo matale charte ci bép fan xam ngeen ni taxawaay yépp matalé matale na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 سري مصطفى موم سري Mouhamadane مباكي مو اوبي جتاي بي ngir lépp lu aju ci ay leral ci ndigal li nga xamne ne bi joxe nako mo meuna jëm ci talib bi yëpp ñu ma sako déglu ngir fas yéene jëfé jëfee incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi nuyu bokki julit yëpp ak bokki talib yëpp ci turu sëriñ Hamzatu mom sëriñ Souhaïbou di xamal ñëpp ci ne dafa am ndigal lu bayiko ci Cheikh Mouhamadou muntaha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 war ci am sa taxaway bop mat seuk lepp lu jëm ci masque yo xamni ya ko wara fagul sa bop gel yi nga xamni ni lañ war raxasu yi nga xamni lepp day tax ndigal li gëna matalé matale ñu sàmmanteeg loolu ñi nga xamni ñoy saytu mbolo mi képp ku takkul masque kam dendal na soñi soññi képp koo xam ni gel